Kaja. Cheikh. yow Cheikh lan la ah? la yuuxu nii naan Kaja de gauche à droite lan la eh na xoolal yow lii lan moo ko jar yow yow yàq nga sa àddina pour lu kenn xamul lan lan mooy sa problème. yow mënu nga nek nit li nek sa bop bi nga jël ko soti ko fële dégager ko nga mëna am jàmm ah xolal li nak mom ma ah, duma ko sax nangu duma ko accepter nekkal nit nga arrêté sa yi ngay def ni mais ça suffit tamit li vie la lii du vie yow nelawoo guddi nelawoo bëccëg di ñu bëgg ray kenn mënu fi dégg non lii dafa ëpp waay yow ah bu ñu sonal waay ak kaja xaw ma yéene yi lan moo ko jar Bisa nga bu ndox do ray gëm na ne ma ci njëkk xam nga ndox bu dundul du ray nak ah. ay wax. man damay xey di naan su bobu ngon jot ndax tangor bu metti te duma doyal. c'est normal nak dafa tangi de. jor Jor jor la tang waye nak yow ma ngi li bëgg ragal di yow dal man léegi sax dama lay daw nak say wax koy bëgg ragal. est-ce yaa ngi déglu sa bopp danga maa ragal lan laa def ba may ragal lan moo xew. gis nga li ma doon wax ci waa ji ndekete lépp dëgg la Cheikh daal fii leen tëdd maag moom di waxtaan mu jékki saa rek yuuxu naan ay bul ma bàyyi soo ma bàyyee damay dof ay yow laa bëgg di wax waxu dof yoo xamante ne nii. benn xale bu jigéen daal la doon tudd ku tudd Kaja. Kaja Kaja mu nekk waaye yow mbëggeel lii. mbëggeel mën na raw lii ah. mais naa la xamal benn affaire gis nga kii situation bi mu toll nii tey kenn mënu ko ci jëlee. ku dul yow yow kese yaa mën a taxaw dëggal sa bopp jële ko fi mu nekk yóbbu ko feneen. yow t'inquiète pas ko jàppale comme ni ma ko war a jàppale et sax nga benn affaire gis nga Cheikh mag moom depuis ñu nekk xale di jàngi ñoo doon ànd di jàngi loo xalaat ci àddina lu ñaari nit doon def ay xarit. maag moom dañ ko doon def tëdd selal da lañ bokk mais lépp lañ doon def donc man tey su ma ñëwee gis mu nekk ci problème yi nii man lan mooy sama wareef lu dul soutenir ka parce que dañ doon toog di rêver maag moom di teg suñu ay projet comprendre nga doon man dama doon xalaat heure bii du ko fekk sax fii léegi nag man dama amoon benn rêve boo xamante ne loolu daf ma sonaloon nag bi ma nekk xale ba léegi damaa bëggoon jàppale ko bu baax baax a baax a baax a baax yàlla def ma séparé woo moom lu yàgg comme que gisaat naa ko tey jii nag mu nekk situation yi dama koy jàppale ba mu génn si incha allah. en tout cas xamal xamal benn affaire occasion mel nii dootoo ko amati parce que dégg nga boobu ba tey dam ko yéene fu mu toll nii taxawal nga dëgg sa bopp yéene bi mot mooy dëgg.

waaw wuy ma mu toll ni gis sa karam bi changé te man maa ngi nii tàngoor baa may bëgg a rey xam nga nu ñuy def waxu seex dañ ko bàyyi ba ci kanam damaa xiif defaral ren ñu reer bu paree maa ngi ko bërsët ak Cheikh. yow moom waxu woon ma rek lii di jënd maa xiif ku lay waxee wax tey wax ba mu neex xaaral ma dugg ay xeer ay waay yi bu leen def looloo yonent bi sallallahu iñaan day lekk jëf ju baax ni safara di lekkee mat bu leen iñaale eh. yow bàyyi ma <laughs> mënoo leen ci man naff yi gis nga booy may jël caat moo ci gën a ndaaw bu doon course de vitesse la xam nga fan lay nekk ay sixième septième position ci ginnaaw kooku instant bi dama téye xol bi may def ci moom xaalis temps heure ak lu ko góor musul jox muy mbëggeel ya. yeah man prince donc sa wax ji ngay def daf lay sonal rek mais doo yàq dara si yaa may kom eh yow laay waxal est-ce que li may wax mi ngi un sa bopp man dama laa un xam tax ma yërëm la sa lii ngay sol ak sa un xale jigéen topp la nga na yow la nga foog ni bu asamaan doon wàcc sax un nga koo téye

ba guddi ngay tëb armeel yee dem ci bàmmeel yi ngir di ma liggéey jaral naa la dem ci borom xam-xam yee joxe sa alal ngir yàq ma ah, jaral naa la nga des ma ma di ma liggéey bay yàq ca adduna bi amu solo waaye fifi la yow mbaa doo mi yow sëgg ci téléphone rek di xool yow fifi naa lan nga def ci mbedd mi ah lu la teree toog ci biir kër gi bu ne ni da nga war sa chaise bi rek ñëw toog ci mbedd mel ni ko amul kër. kër gi dafa tàng en ce mënuma toog ci biir jàpp si rek. ay fifi naa loo jëlee yow xool nga sa bopp. yow nanu to yëre yu bax sax to ndax kan Cheikh yow da xamna ni nga topé Cheikh xaj sax wu ko borom yow lan mo la jaral li yow nan lay leké nan lay nané sama jëkkër xawma ci fat ci lu mu nek xawma nak mi ngi lek lek bu baax xawma nak mi ngi nan xawma nak mi ngi fu nek lo bëgg def lenen Bien suka dia sama sama sama jëkkër laa seeti woon. c'est pas normal Wow, c'est pas normal sa jëkkër bu lekku woon naanu ba tey nga na kon nga dégg tàgge ya? eh duma wax ngay tontu de. yow Cheikh jar na lii tey sa fifi naa fan nga nekkoon bi ci guddi. bien sûr que sama sama sama jëkkër laa seeti woon. xamul ma lay xamal. yow waa mbedd mi sax xam nañ na yow ñëw nga fifi naa mbedd yi xàmmeetuñ la fu nga dem foofu. gis waa mbedd mi ngay wax ak waa koñ bi ngay wax tey jii ne bu ñu xamee ne ñibbisi naa lépp yow la ndax sama bàyyi woon fu ma doon sëy ma toog fa kenn du ma xamal dara yaa tas sama sëy. Eh, boo ko waxatee ma ñuus sa ah waaye man maay sa morom man maa jëlee ci kër ga maa la dimbali ngay wax wax ju bari sax dama ko dul sekk ak yow yow léegi danga may bëgg a dépassé ndax Cheikh Cheikh moo ma la gën na mi demoon ca taabal ja yow nga xam ne ma bàyyi woon foofu nga faatu xam nga lu may xamal. eh tourné ni yaakaarloo man laa la wax du ma sama roman damaa bëgg nga dajale siège yi fekk ma léegi ci biir kër gi imbécile va te faire foutoyer